kan kan kan so kan ma fada football sai yana so ko he gari kuma na yo yow eh, football ni ni tek eh dama la football football ni si tek ni si ni si tek ni si tek mënuñu ko woon ñu ndax football ñu ko sen koñ wërsëg la rek afrique tek bi daa metti mais yow yow bo ursamé do dugal secteur ka nga ne rek góolu waaw ko ngay jël fi wax na la xase yow match ba may ursa boko classe handicapé sa gën yow match ki nga yow match ba may or or da ngay dugal <laughs> boy fils ima mu yaat Sadio Mané ah ma ma ma ma ñëwaat ma ñëwaat xam nga temps temps damay damay joxe ay verdict quoi mo temps damay joxe verdict Paris génn na Paris mooy sama équipe Paris Paris Paris day wàcc Atalanta Bayern amul caractère c'est une équipe mais amul caractère te Barça rek a yem comme comme ni kii Modou Lo yebee Eumeu Sène rek dama la Modou Lo Modou Lo ndax nu noonu la noonu la Barça Barça yebee Bayern la kañ daaw la. amical mu daan sa kat. booy kañ la kañ la kañ la Messi dafa waaj dugal ko si bàmmeel bi défenseur boobu. loolu mooy arbitre soofa. da ngay xool euh, enjeu combat yi gis nga Barça humiliation yi mu jël euh, si euh, Ligue des yi vraiment remonté ko ñëwaat limite pour remonté ko Sadio Mané mooy mooy Sadio ji ñaaw bu def bu def Messi. yaa troisième année bi entraîneur bi du nangu loolu. mais loolu problème bi xam nga problème bi. lu problème bi. défense Barça du tenir attaque bu bëri na boobu. xaatu ko sax Barça seen kanam ga amul problème. waaw mais défense mënu tenir. ah te daal waaw mais léegi léegi il faut essayer de man euh, d'encaisser le moins de but possible à Bayern la. mais parce que Barça Barça boo ñëwee camp xam ngay jël. ah mën na kay. benn seen kaw gi ñuy joué. Eh. ah seen kaw gi ñu mën. waaw match benn match kese la amul doole retour. amul doole retour léegi la la kii tëggum semaine. waaw la ngay terrain neex

ooy ooy ah ban fondation El Hadj topp Marème Faye kii Marème Faye di ko cogoo kii Macky ah, ah, di di yokk teemam ñu ma jox mbay onze gel yow takkul moom nga ñoom waaye jour boobu def carrière El Hadj Diouf a yem Sénégal Sadio Mané gel kenn xamul gëram day dem jumaa ñëw Sadio Mané li lay sérieux Sadio Mané moo fi ne c'est le dañu laa bu mu dajeeg mairie gis nga mu leen def jàppal Messi tool xool nga jàpp ak kii Neymar naka jàllal fële Sénégal Brésil xaw nañu koo rey saa nga saa nga Sénégal kii mooy équipe bu kii bi Rakitic bi xaw ma Tchèque xaw ma kii ñooñu Croatie Croatie bu mu dajeeg Sénégal dafa wal ma dama rus gars yi jàppale di leen humilier te Croatie boobu moo finaalu Sénégal rek ku du mën bi dafa roon sori nga xamante ne suñu sëriñ ñi ne fii ku quart de finale ñu ne maa ko wér dëgg maa kii moo tax yàlla di ñu di nga xañ rek am nañ jour bi de sëriñ sëriñ yi yéen a bàyyi li ngeen def bu ñu amee tuuti ngeen ne yéen a ko wér yéen a kii bàyyi leen ba dem finale sax ni ngeen def Algérie dooñu mooy lool tamit ni ma méttee xam nga gis nga final Algérie bi ah non pour ñoom alxuraan ñu nekk moom naar yi yor seen alxuraan njëkk du naaree ñu ko jox yow ki lay jox ki lay jox ki lay jox du dese ñun ay cedd la ñu woon ay xambala ci xamoon naar <laughs> naari jox ñu alxuraan léegi ñu ñu alxuraan naar li ci mën naari mënuñu ko jox waaye ba ñu dugalee biiw deux secondes xam nañ ne am na am na téere yu ñëwul de <laughs> ah, Moussa am na téere yu ñëwul bilaay am na téere yu ñëwul Moussa Paris Paris de dem Lyon sóor ko dafay dafa yeb jour angal kii te Chérif dafa ñàkk fayda mais fala Mbappé jare Mbappé keroog day daw ma ne ma Mbappé moo tax man dama am flair Mbappé dafa jàpp waa Manchester City jël mais benn at mel ni xam moom poids bi tax gars yi teguñu te kaay jënd ko léegi. ren jii moom ay erreur la ñu bëri gaaw yàlla gëmatu ko. gëmatu ko ah daa amoon doole fu commencé diis. ba na naa doole yóbbu waaw parce boo non pare gaaw yàlla boo commencé jël poids du la gëm. booy day kii waaw. ay affaire ça. ah. comme comme du ko ciy kii ki Traoré. waaw maa ngi kooku mbër la wala la. eh day entraîné xam nga nga xamal léegi huile lañ koy lañ koy te moom pourtant mu nekkee Barça dafa ndawoon waaw Barça ko bàyyi léegi nag voilà comme gannaaw kooku Traoré ba noonu a jàppale Messi Messi fu mu ne combat yi da koy négocier Messi bu doon bëri fu mu ne si ay sëriñ kese ko teg amatul doole ji ni Balla Gaye bëri euh, ni Tafa Gaye bëri Balla Gaye laa boobu dem <laughs> Messi loolu dese <laughs> bu lu péere rek <laughs> Messi day Messi màgget waaw Real Real man de man de mu kii la saan ma ko mais Real moom euh, euh, hasard laa yaakaar bu ñu jëndoon Sadio Mané saa Mané moom mooy xar boobu boo ko jëlee 100000 doon na koy jaayee 300 millions non Sadio Mané moo fi ne Assane moo fi ne gars yi complexe lañ rek ah, loolu ah. vacance baaxul nañu noonu ngeen koy moom ñaari gauche Varane du joueur Varane ñaari góos la yor waaw dara Varane xamul dara ñaari góos la yor xamul dara. si li ma fa la moom. xam nga man ku Sadio Mané lu ma la seetaan man léegi dama dama soxor de Moussa ma bëgg. Liverpool. Liverpool dafa bu lay signé boo amul koofa bul dem. ah kan lañ bëgg Ismaïla Sarr barki Rasulullah Ismaïla Sarr bu demee foofu est-ce que Sadio Mané Ismaïla Sarr xoolal ba ma naa leen kii kii dañu ko war a jënd flèche la Ismaïla Sarr dafa lu ñu doon doxuñu eh léwét bu xool kii Isma Isma di nga daw ba dee nga daw ba dee Ismaïla Sarr du sonn waaw Moussa boo paree physiquement mënoo mënoo jamono ak moom physiquement da ngay pare ba pare xoolal ma la gaaw dañoo physique pare te dinaguñ si football xam nga tey Atlético la ma seen problème dañoo physique mais mënuñoo dugal xam nga kat mais Liverpool dañoo physique ba pare mën a mën a dugal moo tax ba tey ñoom da dee da ngay bëre ba dee di nga bëre di nga xeex lu leer daal di nga bëre di nga xeex moo ah père père dama naan de non xam nga rek temps yi mooy loolu quoi mais damay teew père ah Ismaïla Sarr non Ismaïla si United moom xoolal United dañu fay jour United United dañu fay jour du ñu dara booy fii boo koy dégg Liverpool sooy dem demal Liverpool ah wala nga dem fan waaw. waaw ah, nangu sëñ Fallou bi ah. ah. man ak sëñ Fallou su nga xam ne Tahirou Sarr amul xaalis de waaw waaw jërëjëf boy seen ma bëggoon ngeen analyse wax football bi am kii mais vraiment yéen booy da ngeen xaw a kii quoi nga sàmm rek wax quoi wala de. kala. gis nga analyser Ismaël naa ko jël. non non Ismaël Ismaël dafa xam sóor la. c'est Ismaël Ismaël analyser moom la ma si garaaw analyse da boo analyser xool Ismaël parfois dafa bëgg a bëri ba dugg dugg seen defu loolu la quoi xam Neymar Neymar man bu dul bu dul kenn daa ko football am na am na na fi bal di dem mais il n'est pas sérieux brésilien yi ñoo sérieux wul Neymar tant ki mi ngi koy du football mooy bëloo maan ki nekkoon Barça sama latéral te kenn daa ko football Albes Albes juga dafa mais Albes mo nan japp Neymar rek ballo. baalloo coggoom la xam nga Albes motax ki ki ñew Neymar non non xam nga football Albes mo ji ah, Neymar wa Neymar waaw ah, Neymar moo jiitu Neymar moo jiitu wa Neymar moo jiitu non non pas mo tamit man Paris sama fàtte rek laay topp mais dama faté won ci ba man Albes dara. non Sadio Mané mo mboy yalla ko yalla lafal cat <laughs> Sadio Mané il est sérieux Wa Casamance ah, na mel noonu dañuy naataa mais ba lay ñi.